ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ñu ngi yeesal santar suñu boroom subhanahu wa ta'ala ci lim ñu wërsëgal ñu dajawaat tey ci am néegam di fas yéene jël benn bind bu aju ci li nga xam ne mooy suñu wàllu diine muy téere bi ñu topp di risaala bu ibn abi zayd al qayrawaani tey nekk ñeenteelu fan ci weeru octobre di tombeek le 17 ci li nga xam ne mooy weeru safar ci 1442 ñu ngi nekk ci fanweerilu bunt bi ak juróom-ñaar baabun fi ahkaami dimaai wal xuduud su dee ne da nga yor traduction bu xonq bi yaa ngi ci page 94 bu dee samru daani bi yaa ngi ci 576 nga xool rek ci ñeenteelu ligne ba da nga gis mu naan wa diyatul mar'ati ala nisfi min diyati rajul mi ngi noonu 576 ci sama rodani ca ñeenteelu ligne ba wa diyatul mar'ati ala nisfi min diyati rajul alhamdulillah kon comme ni nga xamee ne nii noonu lañ ko waxe woon ca suñu dars bi passé mooy lii ay wàllu atte la suñu borom yàlla nag nattu nañu suñu réew atte woowu ñu la yàlla wàcce waaye du tey it jullit ñi war a xam loolu doonte ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala ni mu tegalee ay atteem bi muy wax wàllu atte dafa woo jullit ñi yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alqisaas fi lqatla ba aaya ya pare gannaaw ba la waxit yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaam ca mooy kon noonu lañ ko waroon a toppe borom bi it wax nañu ne walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab yéen ñi nga xam ne am ngeen xel yu ngeen di xalaate ngeen tëral li yàlla wàcc ci téeréem te ku damm ba bañu nit moo ko tey damm leen bañam ku rey nit moo ko tey rey leen ko ku nangam nangam moo ko tey def leen ko nangam mu ne loolu mooy tax ba seen dund ñoŋ ba ki bëggoon a def lu bon su xalaatee ni lii la may jural suba ba mën na ko bàyyi mu safaanoo nag ak li ñu yàlla nattoo yéen ñépp ngeen xam ko kon incha allah ñu jël suñu bind bu bees wala bu jëkk bo day wax ni wa diyatu lmara ala nisfi min diyati rajul la ñuy jox jigéen bu dee ne dañ koo tooñ mooy génn wàllu lañu waroon a jox ko góor ka wa kazalika diyatu lkitaabiyayni wa nisaauhum ala nisf min dalik mu ni naka noonu it tey ab koo xam ni du julit daa bokk ci yahudi ak nasaraan ya génn wàllu diye bañ waroon a jox jullit loolu lañ koy jox seen soxna it dañ leen di jox génn wàllu lañ leen waroon a jox ñoom wal majusi yu diyatuhu samaniya samaniyati dirham samaniyati dirham bu dee ña nga xam ni ay majuus lañu jamono yonent bi mooy waa Iran ñi daan jaamu safara yu deme noonu ñooñu ñu ngi leen di jox huit cent dirham wa nisaauhum ala nisfi min zalik seeni soxna genn wala loolu wa diyatu jirahihim kazalik diye bañ leen di fay ca jam-jam ya it naka noonu la mbokk bu ñu xoolee lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu alal islaam dafa sant ne bu frais jotee bu joxe jotee yow góor yaay joxe looloo tax suñuy ànd ci sëy bi tey islaam danaan yow góor yaay dëkkal yow góor yaay wodd yow góor yaay dundal looloo tax ba wàllu alal heure bu dee séddoo am na ca islaam dafay daal di jël la nga xamee ne nii mooy génn wàllu cëru góor loolu la ñuy jox jigéen loolu nag mbokk bu dee da nga xoole lislaam ci ñaari bët da ngay gis maanu teeg suñu borom subhanahu wa taala amma bu dee yàqkat yi xoole lislaam ci benn bët seen wax yépp mooy islaam dafa suufeel jigéen subhanallah amma yasifoon kon noonu la mooy kon jigéen buñ ko reyoon tey téeméeri giléem lañ waroon a jox ko góor moom juróom fukki giléem lañ koy jox buñ demee ci cëriñ nar a jàng ci kanam it noonu lay demee noonu mu wax ci jigéen it loolu la wax ci chrétien ak juif heure bu ko jurit rayoon wala ci seen biir seen diya du paase genn wàllu la ñu war a jox ka nga xamee ne nii mooy julit ba góor mi ngi noonu suñ jëlee beneen bind mu ne wa fil yadayni diya ku dagg ñaari loxoy nit moo ko rey ni te yem day joxe diya bu mat sëkk wa kazalika fi rijlayni ci dagg ñaari tànk nit it naka noonu aw awil ay nay ni ci foq ñaari bëti nit naka noonu fi kulli wahidatin minhuma nisfuha amma ci benn ci lépp loolu génn wàllu diye lay doon benn loxo génn wàllu diye benn tànk benn bët génn wàllu diye wa fil anf yuqta'u maarinuhu diya su dee ne bakkan dañ koo dagg ba dagg la nga xam ne moo ko jokkalee jëm ca bët ya loolu lépp da ngay joxe diya bu mat sëkk wa fi sam i diya ki nga xam ne def ni nit loo xam ne mënatula déggati day joxe diya wa fil aqli diya ki nga xam ne def na nit loo xam ne tax na xelam dem kooku day joxe diya wa fi sul bi yan kasuru diya ki nga xam ne dafa daañal nit ki ba yaxu digg gannaawam nga damm mokkoree ni tayam day joxe diya wa fil unsayayni diya koo xam ne dafa tapp nit toj la nga xamee ne nii mooy la suufee awram ba lool yi dafay joxe diya wa fil xashfa diya ki nga xam ne dafa dagg sàkkara doomu aadama moom it day joxe diya wa fi lisaani diya koo xamee ni ni dafa dagg làmmiñu nit ba mënatu la wax naka noonu wa fi ma mën a minhul kalaam diya naka noonu it lépp loo xamee ni nii tax na ba waaj a mënatu la wax même bu dee làmmiñ baa nga fa du tey ngay joxe diya wa fi sa day yi almara la nga xam ne mooy sa diya yi mara maraati ñaari weeni jigéen ku koo dagg diya day joxe diya wa fi aynil awar diya koo xam ne it benn bët rek la am nga ñëw fokk beneen beneen bët ba nga fukk benn bët boobee da ngay joxe diye bu mat sëkk loolu mi ngi noonu mbokk julit lii ñuy wax lépp mi ngi aju ci koo xam ne dafa def lii ca un moo ko tey walla fekk ne teyu su dee ne moo ko tey kam ko def am na droit ne jëluma diye damay fay damay fayu amma am na droit jël diya loolu la expliqué ci doomu aadama bi nga dagg ay loxo kooku daanaka rey nga ko rek ki nga dagg ñaari tànkam ki nga fokk ñaari bëtam daanaka rey nga ko ñaar yooyu boo ci jëlee benn genn wàllu diya ngay joxe bakkan ba na ko noonu xel ma na ko noonu loolu it la ñuy wax ca gannaaw ga loolu la ñuy wax ca la nga xamee ne nii mooy awram ba daanaka boo ko daggee rey nga ko may fàttali benn góor goo xamee ne nii ci yëmbal histoire bu mu fekke woon nee na waa ji dafa takk am ñaareel soxna si bàyyi ba guddi rek mu jëkku awra bi rek dagg ko bi mu jëkkoo awra bi dagg ko fekk moom mi ngi woon ak fetal mu jël fetal gi rek dóor ko bal soxna si daanu waa dëkk bi daw ñëw jël waa ji yanu ko yóbbu hôpital ñu arrêté hémorragie bi waa ji sauvé léegi nag ñu dem ñu leen di juger ci tribunal bi juge bi ñëwee mu ne daal ba ma dalee juger ba tey mosuma gis néew bu rey nit comme nag yow rey na la rey nga ko dem leen nit bi gis ngeen wa dëgg yàlla it góor boo daggee awram daani ko rey nga ko moo tax ci lislaam it ki dagg awra nit ki moo ki ko rey ñoo yemale diya bi dañ la koy laaj mat sëkk loolu la ñuy wax ci bët ya loolu la ñuy wax ci lépp lu ko tee wax ila axiri lii lépp mbokk boo ko xoolee day wane yërmaande doomu aadama yërmaande bi yàlla am ci doomu aadama ak fonk gu yàlla fonk doomu aadama ba cër yi mu ko defal képp koo xamee ni nii jalgati nga ko même bu dee tayoo ko islaam ni da nga joxe téeméeri giléem te boo liggéey dee mooy téeméeri giléem wala nga joxe junni dinaar wax nañ leen ko suñu dars bi passé loolu dana ëpp cent millions yoo xam ne da nga koy war a jox nit ki bu dee ne dañ koo rey wala nga jox ko wala nga def ko loo xam ne dañ ko méngaleeg rey comme yii ñi nga xam ne dañ leen koo limal fii loolu mi ngi noonu kon ñu jël beneen bind mu ne wa fil muwaddiha xamsun min al ibil koo xam ne nii jam na nit ki ba yax ba feeñ dana joxe juróomi giléem wa fi sinn xamsun ki damm benn bañu nit juróomi giléem wa fi kulli isb isbain ashrun bépp baaraam boo daggal nit da nga joxe fukki giléem wa fil wa fil anmulati salaatun wa sulus ki nga xam ne dafa dagg benn catu baaraam anmula mooy baaraam bi boo ko xoolee gis nga trait yi ci nekk diggante trait morom bu nekk loolu la ñuy tuddee benn an anmula boo daggee bi ci kaw da nga joxe ñetti giléem gennoon nga dagg bi ko féete suuf kon juróom benn giléem ak noonu boo daggee baaram ba yépp na nga doog a joxe fukki giléem wa fi kulli anmulatin min al ibhamayni xamsun min al ibil amma nag bu dee ne baaraamu déy bi moom heure boo daggee genn walla ga da nga joxe juróom boo daggee la ca des mi ngi noonu muy fukk wa fi munaqala ashrun wa nisfu ashru la nga xam ne nii mooy munaqala mooy waa ji bi nga ko coree jeesi wala nga jam ko paaka waxumaa yax ba feeñ na waaye dem na ba xoos yax ba sax ba fell yax ba doonte ne bëttul ba yegg ca bopp ba ca yuur ga waaye nag fell nga yax ba loole lay wax ni da nga joxe fukki giléem mu ne wal muwaddiha kon day leeral lim jàngale woon ma awdaha al azam ma ma awda ma awdaha al azam mooy bépp jam-jam boo xam ne yegg na ba feeñal yax ba wal mu naq wal mu naqila ma taara farashuha min al azm bu dee mu naqala nag moo loo xam ne naaw na la nga xam ne mooy la ëmboon yax ba ca kaw féete ka kaw ñi ngi noonu walam tasil ila dimaax doonte ne yeggul ca yuur ga wa ma wasala ilayhi bu dee nag dóor ba dem na ba yegg ca yuur ga fa hiya al mamuuma kooku moom la ñuy tudde mamuuma fa fiiha sulusi diya fa mel noonu day joxe sulusi diya mi fanweeri giléem ak ñett ñi nga noonu wa kazalika al jaifa le mel noonu la ñuy wax ci jaifa ca jaifa mooy ki nga jàmpaaka ba mu yëgg ci butit ya wa laysa fi ma duna al muwaddiha illa al ijtihad jam-jam boo xam ne ni nag yëggul ci feeñal yax ba loolee attekat ba mooy xool lakalan la koy teg wa kazalika fil jiraahi jasad loolu dañuy wax ci jam-jam yi ya nekk ca jëmm ja wala yuqalu jurha illa ba'da al bur'i ki nga xam ne nii dafa jam nit ki bala ñu koo laaj mu joxe diya fokk waa jëm jam day wér wa ma bari'a ala gayri shay shaynin mimma duna al muwaddiha fala shay'a fihi lépp loo xam ni wér na ca bàyyiwul benn trace ca bokkul ak jam-jam ba feeñuloon yax ya xanaa jam-jam yu ndaw yi rek ya ca wér lool yi amul diye buñ cay teg xanaa lu dul la attekat bi gis moom ci boppam ala kulli xaal la nga xam ne moo tax ñuy wax loolu mooy bala ñoo jël diye dañuy xaar ba waa ji wér ndax waa ji mën nga koo jam ñu dem ba yàgg jam-jam ba mujj ko rey su boobaa kenn dootu la laaje ci diyëb ku jam waaye dañ lay laaj diyëb ko rey moo tax dañuy négg ko ba waa ji wér ñu doog a laaj diye ba nga xamee ne nii moom moo aju ci loolu ala kulli xaal su doonte ni mbokk yi am nañ luñ ci doon laaj bala ñuy continuer ci lu aju ci lii nga xam ne dañ koo jot a jàng insha allah su dee am na naam bismillah naam ala kulli xaal bu dee ne ci mazhab malik bi ci téere bi ñuy jàng ñoom dañ naan kenn du fayonte diggante jaam ak ka nga xamee ni nii moom mooy gor rawatina bu dee jaam boo xam ne nii yaa ko moom donte ne def na lu bon amma boo dellu woon ci yeneen borom xam-xam yeneen ci bàyyi salaam day wax ni ku fi rey jaamam dañ ko rey ku fi tapp jaamam dañ ko tapp ala kulli xaal loolee ab ixtilaaf la waaye daal ñu xam ni jëf la ju ñaaw joo xam ni ku mel noo ni islaam lam ko tegoon mooy buñ ko deful lam def jaam ba it waroon naa joxe la nga xamee ne nii mooy a njëgu jaam comme niñ ko jànge woon ci gannaaw ndax xam ngeen bu bu dee góor dafa rey jaam kenn du ko rey waaye ka nga xam ne moo moom jaam ba dañ koy dafa na ko laaj mu joxe xaalis bu méngoog jaam bañ ko reyal ngir mu mën caa am beneen jaam amma ki moom jaamu boppam ba rey ko ku mel noonu mbiram dañ koy bàyyeeg yàlla lu dul punition bu attekat ba gis ne da ko koy teg allahuma lu dul nag bu dee da nga sukkandikoo ca ña nga xam ne ñoom dañoo wéral xadis bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax naan man qatala abdahu qatalnaahu su boobaa loolee dañ koy atte ci yow ndax borom xam-xam yooyu sukkandikoo wa katabna alayhim fiha anna nafsa bi nafs ko rey bakkan fekk yaa ko tey kooku góor la jigéen la jaam la kum mën a doon dañ lay rey ngir loolu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam naam waa ji nga xam ne dañuy xeex ba kenn ki dagg loxo moroomam ku mel noonu fokk da koy jox diya lu dul ne xeex ba dafa nekkoon li ñuy tudde légitime défense mooy waaje moo jóge fële ñëw di ko agressé waaye bu dee xeex la bu dox seen diggante rek ka nga xam ne dafa rey moroomam day joxe diya ka nga xam ne dafa gaañ moroomam naka noonu dafay joxe diya loolee da ngay gis ne moom mooy atteb lislaam da xam ngeen en général amul kenn kuy gaañ nit lu dul ne xeex daa dox seen diggante amma nag comme na ma la ko expliqué loolu moom bokkul ak li ñuy tuddee légitime défense mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam bu ñu xeexee ba kenn ki rey moroomam moo ko xeex nag moom rey ko moo ko tey islaam day laaj mbokkam yi ndax bëgg ngeen ñu rey koom wala duñ ko rey ay julit waruñoo xeex di reyante yonent bi alei salaam nee na ki xeex ak mbokk julitam rey ko ki ñi rey safara la jëm ki ko rey safara la jëm moom la borom bi di wax naan man qatala muminan mutaammidan fa jazahuhu jahannam xaalidan fiha wa ghadiba allahu alayhi wa laanahu ila axiri mooy julit du rey mbokku julit wa ma kaane li muminin an yaqtula muminan illa xataa loolu la borom bi wax julit du rey mbokku julitam dul ci njuumte waaye ngeen di xeex nga tey ko rey ko loolee da ngay gis ne bu fa àtte islam nekkee dañu naan dañ lay rey lu tax ngir ëllëg keneen bañ a rey keneen loolu moom mooy mooy mbir bi am na benn histoire bu gaa yi nettali doonte ne suñu histoire yu réew du lu ñuy mën a dogu à cent pour cent waaye mënees na caa jëlee ay njàngit ñu ne kenn ci buuru kajoor yi bi gaa yi gis ngeen ceddo ni seen yaram tàngi rayante bi mel nu kenn xamul daf ne man daal ci rey moroomam mënuma koo atte ku fi reyate moroomam danaa la booleeg moom ngeen dem ci yàlla mu atte leen yàggul dara am benn caamin bu xeex ak moroomam rey ko mu ne dem leen indi néeg bi ñu indi néeg bi mu ne indi leen waa ji ñu indi waa ji mu ne gas leen ñu gasum xóot boole leen ñoom ñaar ñëpp suul fekk waa jaa ngi dund ñu ne ba baa ngóoram di jeex kenn reyu fa keneen mukk loolee mbokk kon moom la borom bi di wax ni lakum fil xisaasi xayaatun ya ulil albaab ala kulli xaal daal mbokk jullit moytul lenn luy tax jullit di rey jullit abadan xanaa du dul ci njuumte non waaw kon ala kulli xaal kon ñu jël beneen beneen bind kon mu ni wa fi ljiraahi alqisaasu fi lamdi illa fi fi fi fi lmataalifi bu dee jam-jam ya day ak fayonte dana ca am ci tey bu dee waaj a jam moo tey fayonte dana am lu dul loo xamee ni nii fayante ga mën na jur waaj a faatu ca ñu te da ko mataalif mislul maamuma mi ngi mel ni ki dóor nit ki ba toj boppam ba mbir ba yegg ca yuuru ga ku mel noonu comme dóor bu mu deewalit bu dee daa bëgg a fayu dañ naan ko déedéet wal jaaifa ci jam nit ba mu yegg ci butit ya wal mu naqila ki nga xam ne toj na bopp nit ba yax ba fell wal faxizi ki damm la nga xam ne mooy lupp doomu aadama mooy diggante óom bi jëm ca kaw wal unsayayni ki nga xam ne dafa dagg la nga xam ne moo féete suuf awra doomu aadama wasul bi ak ndigg lu ñu damm wa naxwihi ak yu mel nii fa fi kulli zalika diya lii lépp ku ko def doomu aadama day joxe diya loolu kon mi ngi noonu kon day wax fii nii su dee ne jam-jam yi suñu borom mu ne wa fil juruhi qisas ki nga xam ne dafa ñëw jam nit ki paak caw nit ki jaasi ku mel noonu su ko neexee jël diya su ko neexee ni déedéet dam dañ koy teg loi su ko defee waa islam mooy xool kemtalaayu jam-jam ba mu jamoon waa ji moom it ñu jam ko paaka bi lu toll noonu kemtalaale jaasi ja ñu caw ko jaasi ji lu toll noonu loolu mi ngi noonu amaa nag bu dee yi nga xam ne kat waa jam ko def daa rëcc waaye en général kuñ ko def nga dee su boobaa dañ naan kenn du ca fayonte di lañ cay laaj waa ji nga xam ne dañoo toj boppam waa ji nga xam ne dañ koo butti dem ko paaka ki nga xam ne dañoo damm ab poojam dagg la nga xam ne moom mooy ay testiculam la féete suuf awraam ki ñu damm ndigam ak yu deme noonu kooku moom day joxe diye bu mat sëkk ay diye bu rey nit bu mat sëkk moom lay joxe waaye kenn du ko fayu suñ jëlee beneen bind mu ne wala taxmilu al aqilatu qatla amdin wala ictirafan bihi wa taxmilu min jiraaxi alxata'i ma kaana qadra sulusin fa sulusin fa akfar wa ma kaana duna sulusi fa fi maalil jaa'i jaa jaani léegi day ñëw ci li ñuy tuddee al aqila aqila mooy jege ñaaleeb kare nit wax nañu ko suñ dars bi passé bu dee dëkk ndakaaru yi nit ñi xamatuñu sax seeni mbokk da ngay dajeeg nit koo xam ne yéen bokk benn maam du ngeen xamante am na bu dee ni démb la ak it ba tey it des na ci dëkk àll dëkk yi kaw yi ba tey ñépp ay xamante su ko defee aqila mooy la nga xam ne mooy sa geño dañuy xool ne hey yéen waa njaay yéen kaay leen seen mbokk bi dafa rëy ñi léegi da ngeen di indi téeméeri giléem mi ngi noonu waaye loolu mooy fekk daa juum amma ki rey nit fekk moo ko tey yoonu ay mbokkam nekkuñu ca mi ngi noonu xanaa lu dul ñu dimbali ko ci coobare buñ ko laajee diye waa ja nga xam ne it moo nangu ne moo rey mi ngi noonu gannaaw ba la nga xamee ni nii mooy jam-jam yi ñay ay mbokkam su dee ne ceer ba rek la ay fanweeri giléem rek lañ ko laaj loole ci xaalisu boppam lay doon amma bu dee jiye jëm def ëpp na la nga xam ne mooy ceeru lañ ko waroon a laaj mooy dem na ba presque yegg quarante giléem ah su boobaa nag la ñuy woo ay mbokkam ne leen dimbali leen ko mi ngi noonu loolu it xikma ba ca nekk mooy ay mbokk dañoo war di jàppalente te it bu la wóoree ni sa mbokk bu defee jéya yow loolee da lay engagé su boobaa loo man ci tere ko lu bon da nga ko def moo tax yonent bi alayhi salaam waxoon ñu xadis bi ñu leen junjoon dimanche passé dimbilil sa mbokk heure bu tooñee dimbili leen ko heure buñ ko tooñee te yëm yàlla yónni bu dee dañ koo tooñ xam nañ nuñ koy dimbali waaye bu dee moo tooñ nag mu ne yéen jóg leen tey loxoom ngeen na ko diw yaa tooñ loolu it gis nañ ne suñu borom day wax ni wala taziru waziratun wizra uxra kenn du yenul nit ki bakkaaram waaye loolu ak njuumte bokku ca looloo tax bu dee moo ko tey moom kenn du imposé mbokkam ñu dimbali ko waaye bu dee teyu ko moom dañ naan hey yéen mbokk yi seen mbokk mii kat njuumte dal na ko yéen ñépp jóg leen ngeen jàppale ko mi ngi noonu buñ jëlee bind bu bees mu ne wa amma al ma'muuma wal jaa'ifa amdan bu dee ne ki toj bopp nit ak ki butti nit fekk moo ko tey fa qaala malik zalika ala al aqila mu ne loolu moom ay mbokkam ñoo koy gàddu ànd ak moom وقال أيضا إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما am na feneen fu Maalik wax ne déedéet lépp ci alalam lañ koy génne lu dul mu nekk ku ñàkk fa taxmiluhu al-aaqila mu doog koo gàddu ay mbokkam li annahuma laa yuqaadu min amdiha ndax ñaari kaa yooyu kenn du fayu ca kaka def fekk moo ko tey wa kazalika ma balaga sulusu diya la nga xamee ne it dafa yegg ba ci ceeru diya ba mimma la yuqaadu minhu ci loo xam ne kenn du ca fayonte li annahu mutlifun ndax loole lu mën a alak nit ke kañu fayu ca moom la wala taqilu al axirata man qatala nafsahu amdan aw qataa la nga xamee ne nag mooy mbokki jegeñaale duñu gàddu mukk di yëpp koo xam ni daaray boppam fekk moo ko tey wala daaray boppam fekk dafa juum kooko du tax ñu ne mbokk yi nañ dem di joxe diye ca loolu ala kulli xaal kon loolu mbokk ay atte la yoo xamee ne nii comme ni ngeen ko déggee rek noonu la demee mbir la yoo xamee ne nii nekkul lu ñuy jëfi waaye daal day wax ni ki nga xam ni dafa rey boppam kookee duñ ko jox diya na doon moo ko tey teyuñu ko te xam ngeen diya boobu ñëkk moom mooy ñu koy doon waaye bu dee ne bu doon keneen moo ñëw rey seen bopp day joxe diya waaye moom moo rey boppam kon jeex na amul diya bu ñuy joxe foofee loolu lay wax ci loolu bu dee dañuy jël bind bu bees mu ne wa tuaqilu almaratu rajula ila sulusi diya la nga xamee ne ni moom mooy jigéen dana bokk ca la ñuy dimbalee góor ba baa ñu yegg ca ceeru diya ba diyati rajul mi ngi noonu fa ida balagatha rajaat ila aqliha su dee ne ñëw na ba yegg ca day delluwaat ca la nga xam ne moom mooy lañ koy diya li moom masala la bu compliqué donte ne borom xam-xam yi noonu lañ ko waxee mooy jigéen su dee ne dañ koy tooñ lañ koy jox mooy la ñuy jox góor fi yéeg yégguñu ca sulus ba masalan tey jii boo daggoon benn baaraamu jigéen fukki giléem lañ koy jox comme ni ñu jox góor dagg nga ñaari baaraam ñaar fukki giléem lañ koy jox comme ni ñuy jox góor dagg nga ñetti baaraam fanweeri giléem lañ koy jox comme ni ñuy jox góor dagg nga ñeenti baaraam ah léegi kon passé nga sulu su diya su boobaa kon dañ naan dañ koy delloo gannaaw ci diya jigéen ca mooy day jël génn wàllu diya góor su boobaa kon ñaar fukki giléem lañ koy jox loolu nag benn mbir la boo xam ne ala kulli xaal loolu moo gën a feeñ ci mazhab malik ki nga xam ne mooy cheikhu malik di rabia ar rayi jàngale na ko benn waay jóg na ko waaw kii musibaam gën a rëy ñu dagg ñeenti baaraamam ñu naan ñaar fukki giléem lañ koy jox kee ñu dagg ñetti baaraamam ñu koy jox fanweeri giléem mu ne nii lañu ko sunu cheikh yi jàngale woon ala kulli xaal ñun comme atte woowuñ ko ñu nit ñu jàngee ko noonu rek ci romb ko jàll suñ jëlee bi ñeen bind mu ni wan wan nafaru la nga xam ne mooy mbooloo yaqtuluuna rajula ñu daje rey benn nit fa innahum yuqtaluuna bihi moom day dañ dañ leen di rey ñoom ñëpp ci loolu wa sakraanu in qatala ci mandi bu dee daa dem rey qutila wa in moom dañ koy rey moom ci boppam wa in qatala majnunun rajula bu dee ab daf nag moo rey keneen beneen góor fa diyatu ala aqilatihi la nga xam ne mooy diye ba dañ koy delloo mbokki jege ñaaleem wa amdu sabiyin kal xati xale bu dee dafa tay rey wala mu juum rey benn la wa zalika ala aqilatihi su boobaa ay jege ñaaleem la ñuy wax ñu joxe diye ba in kaana sulusu diya in kaana sulusu diya fa aksar su demee ba nekk ceeru diya wala lu ko ëpp wa illa fa fi maalihi boo àggul ca sulusu diya nag ca alal yi xale ba lañ koy delloo wa tuqtalu almaratu bi rajul daañu rey jigéen bu reyee góor wa rajulu biha góor gu rey jigéen dañ koy rey wa yuqtasu li baadihim min baadin fi ljiraax dañuy fayonte lenn ci ñoom ca jam-jam ya bu góor jamee jigéen dañu koy fayeeku jigéen jam góor dañ koy fayeeku ala kulli xaal mbokk fii day wax kon mu ne su dee mbooloo ñoo daje woon rey benn nit bu leen attekat bi jàppee ñoom ñépp la ñuy rey même bu doon kenn moo ko ci def nettali naa leen ci tafsir yi benn événement bu fi amoon dans les années soixante dix ay groupe agresseur yu toppoon rawatina naaru pikin yi ren di rek jël seen alal bi ñu leen di jàpp dañoo dem ci benn fenêtre benn waay ñuy séddoo am ku ne hey may jël li man maa ko ren di may jël li mu téléphoné police police ñëw ca lañ leen dàq ba jàpp leen kenn ci seen chef yi bi ñu koy jàpp sax ci boori cinéma vox dafa jam boppam paaka ñu jël ko noonu lañ ko yóbboo xam fan la mujj waaye ala kulli xaal même bu doon kenn moo ko rendi waaye mbooloo ñoo ko jàppale ñoom ñëpp la ñuy rey wax nañ da darsi bi passé mbooloo lu mat cinq personnes reyoon benn waay ca Yemen wala sept su ma juumul ala kulli xaal ñu ñu wax ko Omar ibnul Xattaab mu ne àttekat bi rey leen leen ñu ne ah benn bakkan ñu rey ci lii mu ne waa yemen yépp buñ daje woon dinaa leen rey gis ngeen kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax bu safaanoo nag li ngeen xam ñun agresseurs yi rey fii ñoom fañ leen jëm yéen ñëpp xam ngeen ko campagne naa li ngi nii damier baa ngi ne salle de jeu baa ngi ne jàkka jaa ngi ne fu la neex demal ilaaxi ala kulli xaal kon loolu lay wax ci wàll googe mu ne nag kon bu dee ni waa ji daa manj dem rey nit kooku du tee dañ koy rey kenn du wax ni dafa mandi kon duñ ko topp ndax bu doon loolu ku nekk ku bëgg a rey nit dem mandi rey ko yaa ngi dégg moo tax bu dee da nga mandi rey nit dañ lay rey amma bu dee daf ma rey nit bu daf reyee nit dañ naan ay mbokkam yi ñuy joxe diir daf moom kenn du ko topp ci dara waaye nag ay mbokkam ñoo ko waroon a téye nga noonu nga xam ngeen na dof bu amoon alal tey di mbokk yaa koy jël naka noonu i tamit ay mbokkam ñoo ko war a garder ba du def ay dégâts kon moom kenn du ko def dara moom dof la léegi nag xale xale bu ma géragul dem rey nit tey boo demoon dans les pays occidentaux dafa jeex ay xalu yu am 13 ans jël fetal ñëw tiire kenn xamul su boobaa dañu naan tey noo ko teyu ko maadaama ma géragul moom amul lu ko sharia di toppee na am daan ko dugal fuñ koy yare nag waaye amul lu ko sharia di toppee waaye ña nga xam ne ñooy ay jegañaaleem daañ leen woo ñoom ñooy joxe diyeem na doon moo ko tey teyu ko naka noonu it bu dee góor dafa rey jigéen dañuy rey ko góor ko mu safaanoog lañ doon wax ci diya ba ne day joxe genn wàllu diya waaye bu dee moo ko rey moo ko tey dañuy rey ko góor ki contraire ba it moo gën a yey mooy jigéen bu rey góor dañ koy rey jam-jam yi it noonu lañ koy fayoo góor gu jam jigéen dañ koy fayu jigéen bu jam góor dañ koy fayoo ko ci loolu mi ngi noonu ñu jël beneen bind mu ne wala yuqtalu xurrin bi abd kenn du rey gor bu dee daa rey jaam wa yuqtalu bihi l abd amma jaam bu rey gor dañ koy rey wala yuqtalu muslimun bi kaafir julit bu rey yéefér kenn du ko rey wa yuqtalu bihi waaye yéefér bu reyee julit dañ koy rey mi ngi noonu alkaafir mu ne wala qisaasa bayna alxurri wa abdin fi ljurxi kenn du fayonte diggante gor ak jaam ci ay jam-jam wala bayna muslimin wa kaafir duñ ko fayonteer ci diggante julit ak yéeféer mi ngi noonu kon mbokk comme ni ngeen ko déggee mooy jaam bu dee gor da ko rey niñ ko tontoo sànq dañuy xool lan la jaam bi war a jar ku mel noonu loolu lay joxe su ko defee waaye kenn du ko rey loolu nag mooy àq bi mu yoral borom jaam ba teggiwul nag digganteem ak boroomam loolu moom beneen mbir la loolu moom beneen mbir la su ko defee la nga xam ne mooy digganteem ak boroomam dañ ko jàng ci dars yi ci kanam waaye digganteem ak ñu ngi ko siqal moom njëgu jaam la leen di jox jullit bu reyee yéeféer kenn du ko rey waaye bu dee moo ko rey ca toñ ko digganteem ak boroomam loolee moom beneen mbir la yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana wax ni man qatala muahadan lam yarix raihata aljanna ki nga xam ne ab chrétien la bu ñu amal jàmm dëkk ak moom ci jàmm yow jullit nga dem rey ko yaa ko tooñ xetu àjjana du la xëy am ma ci àdduna nag kenn du la ci rey waaye bu dee ne contraire ba moo am jàmm moo rey gor dañ koy rey yéefir moo rey jullit dañ koy rey ju gor bu dee dafa fekk jàmm mu jam ko jam-jam boobu dañuy xool lan la yeyoo ci alal ñu jox ko ko waaye kenn du jam gor ngir jaam la la jam lu mel noonu la ñuy wax diggante jullit ak yéeféer loolu kon ñu ngi noonu ci wàllu googee bu dee dañuy jël suñu bind bu mujj insha allah mu ne wasaiqu ka nga xamee ni nii dafay fang ay jiital wal qaida ak ka nga xam ne dafay jiite dafay wommat war raakibu ak ka nga xamee ni dafa war daaminuuna lima wati at ci daaba ñoom ñépp day ñooy doon garanti ca la nga xam ni lañu war joggi na ko wa ma kaana minha min gayri fiilihim amma li leen lu ca nekk ci loo xam ne di ñoom ñoo ko jëf aw wa hiya waaqifa li gayri cheyin wala boog dafa doon di aji taxaw li gayri cheyin faila biha ci leneen loo xam ne dañ koo def daaba ba fa zalika hëdër loolu lépp da ngay gis ne dafay doon loo xam ne leen lay doon wa ma maata fi fi birin la dee ca teen ya aw maadin wala ca la nga xam ne muy miin ya yi ñuy génnee këriñ laag or yaag yooyu min gayri fiili ahadin ci lu àndul ak jëfi kenn fa huwa hëdër loolu yi nen lay doon watu na jamul diya diya bi it daañ ko def ay cër alal aqila ca ña nga xam ne ñuy mbokk jege ñaale ya fii salaasi sinin ci ñetti at wa sulusuha fi sanatin ceer ba ci benn at bu dee ceeru diye ba ci benn at lañ koy fay wa nisfuha bu dee nisfu diye fi sanatayni dañ leen koy séddale ñaari at wa diyatu mawrusatu ala al faraid diye dañ koy donn comme nañuy donne ak ndono mi ngi noonu mbokk kon fii day wax ay atte mooy kii dafa jiital nagam wala kii wammat fasam wala kii war mbaamam ala kulli xaal da nga koo jiital wala nga wommat ko wala nga war ko loolee nga war daa di yàq dara lor doomu aadama la nga xam ne yàq na ko wala mu lor ko yow nit ki la ñuy jël ngay responsabilité ci loolu bu ci diye waree yaa koy joxe amma bu doon tene ne daaba ba dafa taxaw ab taxawaayam fa mu nekk am ko ko fa fekk ba mu lor ko te amul kenn koo xame ni nii am na ci moom benn jeexital loolu dañ naan neen la looloo tax ki jege aw nag ba mbëkk ko ki jege fas wala lenn ba matt ko loolu sa responsabilité bopp la amma bu doon nit a ko yor nag mu daal di lor nit ka nga xam ne moo ko yor kooku la ñuy teg responsabilité bi mu des gasteen waa ji nga xam ne day gasteen loolu ay métier à risque la bu dee da dee loolee day neen ñii gas miin yi nga xam ne léeg-léeg nga déggee Afrique du Sud ak kaza wa kaza ay 1000 mètres dañ koy def de profondeur loolu des métiers à risque la su dee ne kenn amu ci effet yow daal fa nga doon gase fa nga dee loolu moom day neen loolu mu ngi noonu amma nag moo ñëw ci diye bi nga xam ne dañ koy séddale mbokk jegeñaale yi mbokk jegeñaal yi attekat bi recensé na leen ne leen yéen ak seen waa ji da ngeen di joxe téeméeri giléem léegi nag ci diiru ñetti at lañ koy fay at bu njëkk bi joxe leen quarante yeneen ñaari at yi bu ne ngeen joxe trente mu jeex su dee ne waa ji dafa war a joxe fanweeri giléem muy sulus bi dañ leen di imposer ñu fay ko ci benn at su dee juróom fukki giléem la war a joxe wala mille dinar nga xam ne dina jege ay cent millions su boobaa it dañ leen na koy séddaleel ci ñaari at bu dee ni su diya mi ngi noonu ama bu dee diya bi complet ñetti at lay doon léegi nag diya baa ngi nii fay nañ ko nuñ koy séddale dañu koy jàpp ne lii alali ki dee la kon dañ koy donele ni ñuy donele de surtout alalam mi ngi noonu su ko defee su boobaa nga gis ne bu dee ne jabar ja day jël sumun bàyyi ba jël sulus doom yu góor yi góor ñaar jigéen benn ni ñuy séddalee miraas rek noonu la ñuy séddalee diya ka nga xamee ne nii dañ koo rey gannaawam am maa ne kii dund moom buñ ko joxee diyaam diya boobu moom moo ko moomal boppam mbokk kon mi ngi noonu comme ni ñu leen ko expliqué woon mbir yi lu mu mën a doon it jullit xam ko di ci baax ba tey masalan nga xam ni su ma daggoon baaraamu doomu aadama yoral naa ko ci làqul islaam àqul islaam du tolloog fukki giléem su ma daggoon ab loxoom yoral naa ko ci àqul islaam lu tolloog juróom fukki giléem loole su ci sa kattan tolloon da nga ko koo war a jox su ci sa kattan toll it nga jéggulu ko ko waaye xamal ne loolu la yàlla atte woon donte ne réew bi nga nekk atte woowu ko loolee ñu bàyyi ci xel bu baax la nga xamee ni it ay atte la yoo xamee ni nii islaam tegu la ko nga tuub ci tuub bu sell mi ngi noonu ca masalan waa ji nga xam ne amoon na soxna ba pare njaaloo na dañ ko war a rey waa ji nga xam ne kaza wa kaza yooyu yëpp mbokk maa dama atte amu fii lan moo des nga tuub tuub bu sell sa digganteeg sa borom te waxoon nañu lee ci dar si passé ni acte bi ñu lay teg ci àdduna du loolu mooy far bàkkaar bi waaye bàkkaar bu mu mën a doon dara du ko far lu dul tawbatan nasuha mooy tuub gu sell sa diggante sa borom yal na yàlla aar ñu ci aaral ñu suñu njaboot yal nañu yàlla musal ci lépp lu ñuy lore doomu aadama yal nañu yàlla defal aafiya fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain moo ko tey te loolu jàpp naa ne lu raara raar luy mën a am ci sëriñ daara di jàngal taalibeem ba pare jublu di ko rey fekk moo ko tey rey bu ci amee rek njuumte lay doon su boobaa day joxe diya wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah waaleykum salaam di fekkee mu dem ci seen prières yi ñu suivre seen prière waaw mu muuru lan mooy aaday naar maanaam mu jàppe ko aaday naa mu jël muura jàpp muuraay aaday naar ala kulli xaal euh, ndax julit dana dem ci prière chrétien déedéet mbokk julit suñu borom subhanahu wa taala dafa wax ni ñooñu nga xam ne ni dañuy woote ni ay chrétien lañu ñu dégg ne diine l'islam am na ba pare ñu lànk bañ koo ju- bañ caa dugg suñu borom nee na safara lañ jëm la chaque ne suñu mbokk Ousmane Galla Joka gis ngeen fitne bi ka dal natt la rek boo xam ne ni dal na ko waaye man dama jàpp ne amul benn borom xam-xam buy wax ci Sénégal te mosoo wax ni inna lazina kafaru min ahlil kitab wal mushrikina fi naari jahannam amul kenn ku mos a wax lu dul waxoo ne wa man yakfur bihi min al ahzab fa naaru mawiduhu kon kay xëy na moom daal am ne leneen du tax ba ñu wax loolu waaye yàlla kulli xaal mbokku chrétien boo xam ne nii diini l'islam yeggul ci moom su dee ne day bokk na ci ñi wéetal lislaam ñi wéetal boroomam bokkaale wuñ ko ku mel noonu bu dee ci loolu àjjana la jëm waaye képp koo xam ne lislaam yegsi na ci yow nga xam ne yàlla yónni na muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba pare nga lànk bañ caa dugg suñu borom nee na kooku sawara mooy sa wàccuwaay ku mel noonu nag da nga war a dem woo ko mu dugg si ba texe waaye yow wuroo dem di ko fekkee ak prière am mu la yóbbaale ci seen prière rawatina comme ni ngeen ko xamee li ëpp ci ñoom mari la ñuy woog isaak yu kenn xamul yooyu amma ki jàpp ni muuray aaday naar la ku mel noonu de dañ koy tuubloo dañ koy tuubloo xamal ko ne déedéet lii yàlla ko wax ci alxuraan su continuer ci loolu dañuy jàpp ne yéeféer la su continuer ci loolu gannaaw bu ñu ko leeralee na ko déet da ngaa juum du aaday naar de yàlla naar yi la waxal ne nañu muuru bu doon aaday naar lu ci yàlla di wax yàlla ay naar la doon waxal di ne yow yaa ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisaa'il mu'minin nee na nañuy muuru kon loolu yàlla ko digle du aaday naar ca commencé wul ci l'islam yi commencé ci diine yu jëkkee demal l'évangile selon Paul day wax naan que la femme qui ne porte pas le voile soit tondue mi ngi noonu ba tey mi ngi mi ngi mi ngi foofu kon ku mel noonu daal ala kulli xaal koo ko dégg ci intellectuel bul jàpp ne yéeféer la waaye bis boo xamee ne leeral nañ ne ko lii ci alquran la nekk mu continue di wax waxam yooju ko boobaa dañ naan yéeféer la wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam gay waaw waaw ala kulli xaal bokk na ci ixtilaaf yu borom xam-xam yi am te daan ci ñëw ci ka- ci bind yi ci kanam mooy bu dee lu mel ni ay mazhab Malik ak mazhab Abu Hanifa ñoom dañ ne diye bi mi ngi yem ci la nga xamee ne nii mooy nga goreel jaam non maa ngi wax ci sa diggante bi ak sa borom bi diya amul lu koy remplacer lu dul ñu baal la yaa ngi dégg amul lu koy remplacer lu dul ñu baal la mi ngi des nag ci la nga xamee ne nii mooy ki rey nit fekk teyu ko dafa am ñaari àq àq bi jëkk bi mooy digganteem ak boroomam ak digganteem ak moroomam digganteem ak boroomam suñu borom dani na goreel jaam bu ko amul mu wóor ñaari weer yu tegaloo foofee la borom xam-xam yam ixtilaaf lu mel ni Abu Hanifa ak Malik ñoom dañ ñi su dee munta woor mbir mi teggeeku na ko bu dee lu mel ni imam Ahmad ak Shafi ci seen riwaaye ñoom dañ ni bu munta woor day leel juróom benn fukki miskin ndax dañ koo qiyaas ci koor waaye bu dee ne lii la ma la wax ñoom dañ ne déedéet loolu amu fa amma diye moom suñu borom dene fa man ufiya lahu min axihi shay'un diye moom bor la ñii daal yoral nga leen téeméeri giléem wala yoral nga leen cent millions bu doon suñ jamonoy tey suñ toogee ña la baal nañ la xëyrun jox ñu un million nangam bu dee leen dañ naan la yaa ñu ko yoral xamal ne bor la boo leen yoral boo leen ko fayee yoral nga leen ko boo ko deyaale yoral nga leen ko waaye dara mënu ko remplacer wallahu subhanahu wa taala alam naam naam naam bismillah waaw ndax lislaam may na waa ji nga xam ne dafa faatu ñu jàngal ko kaamil al quran ala kulli xaal borom xam-xam yi am nañu ixtilaaf ci masalan ku mel ne doomam yéene jàng ab kaamil ne yàlla yool bi man ko yéene sama way jur am na ca ñoom ñu ko nangu am na ci ñoom ñu ko nanguwul amma la nga xamee ni nii moo xew ci sunu jamono yi tey ca tasaaroo fa bëri ci àdduna bi yonent bi bàyyiwu ko fi Shafii Maalik kenn bàyyiwu ko fi mbooloo mu daje ne dañuy wàcceel kaamil ki de loolu moom islam xamu ko woon islam daal la mu xamoon moo ñu daan jàng ci seeni kër ndax ki nga xam ne jàng na lii ba pare mun a ndax yool bi jox nañ ko dama ko jox diw am nañu ko nangu am nañu ne loolu xamuñu ko woon ci doxali ne yonent bi ki saxaabaam loolu kon ixtilaaf am na ci amaa nag jiiw indi kaamil bi teg mbooloo mi ñëw ñu wàcc ko sur place loolee moom gannaaw ñu doon bindi téere yu jëkkee daam doo ko fekk ci téere benn benn téere fiq ci juru téere yi tasaaroo ci kaw suuf yépp doo fa gis atteb jàngal kaamil ko dey amul ay siècle après la ko doomu aadama créé mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam ala ala kulli xaal kon mbokk yaakaar naa mën nañ ah ah ah ala kulli xaal procès bi dañ koo dàq ba le 12 novembre dañ koo dàq ba le 12 novembre kon ñu ngi noonu waaw mbokk ba mu ne lan ñu waaw ñu mujj ci moom rek bisimilah waaw ah waaw waaw waaw ala kulli waaw waaw naam kii dawal oto yaa ngi may fàttali question bi fi mbokk bi posé woon dimanche bi passé kii dawal oto moo kii dawal fas ñoo yem oto ba lum ca rey mooy responsabilité donte ne teyu ko mais teyu ko léegi nag rey na fukki nit su boobaa dañ naan day joxe fukki diya ca bu boobaa it day woor fukki ñaari weer loolu mooy la nga xam ne moom la borom xam-xam yi wax bépp bakkan boo rey dafa am atteem boppam su ko defee su dee rey nga fukki nit war ngaa joxe junniy giléem wala fukki junniy dinaar da ngaa rey fukki nit nit ku nekk war nga ko wooral ñaari weer su ko defee looli la ca sa kemtalal kattan am da nga ko cay def ba baa ngay daje ak sa boroom loolu ñu bàyyi ci xel bu baax donte ne woor yooyu ngay woor it heure bu dajee weeru koor da nga koy dagg continuer islaamin may na la bu dee ne am nga loo xamee ñu nii tukki la bu tappale amul wax nga xam ne bu doon weeru koor a mën ngaa dog su boobaa mën nga caa dog bu dee jigéen na ay bisu règle mag yëpp da koy dog loolu moo aju kon ca wàllu googee loolu moom la ñuy wax ci loolu di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla aaral ñu mboolem ñi nga xam ne dañuy dawal oto waaye nag tamit loolu ñu gën ci bàyyi xel ci ne tey jii bu ñu la doon wax partout dans le monde accident yi daanaka la ci ëpp indiscipline moo ko waral loolu moom du du fenn nag du ci tubaab yi du ci dëkk Arabie Saoudite Arabie Saoudite toujours dañuy joxe ay résultats ne accident temps moo am ci at bi lii la ci indiscipline waral lii la ci défiance li ci nangam waaye toujours da ngay gis ne moom toujours la ci ëpp mooy nit ñi ñoo àndul ak discipline jël ab oto di ko dawal cent cinquante ah ci tëli yu mel nii wala ala kulli xaal daal islam boo gisee mu ne ki nga xam ne daa rey ca teyu ko nañ ko teg lii loolee daa bëgg ku nekk di bàyyi xel jël ay mesures ba doo rey fekk ne njuumte da ca am yal na yàlla may ñu afii fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain